gépp gépp dekk déeg yi taar jur gi naan ba ñu naajee ba mu naajee buur bi yónnee ci sëriñ ba na ko si yàlla ji xam na ma noonu naa la bu tawulee dinaa ko woon loo xam ne ba illaa yoomal xiyaam ñu di ko waxtaane mu ne ko o buur amuloo ñàkk teggin laaj la noo nar a def waaw bu yàlla tawul woon mooy def mu ne ko yàlla bu tawul woon xaama fu mu ne xaama fu mu féete xaama na mu dey waaye yow mii ko fi nekkal yow laa naroon a jël futti la yow la fudd suñ digg ba ñëpp xam ne dina waaw taxawal foofu nag tuuti pour intéressé bi foofu waxoon naa la ko si nee naa la lekk sa ñam moroomum jullit moo gënal yàlla dañeel ko ne da ngay or ba dañeel maam yàlla wacc ci si ñamu du mbokkam jullit xam nga conférence soo ca demee ak invitation nga or yoor daf la ndox loo waaw bu dul yooru fara bu dul kooru farata foog nga ndox parce que boo dogulee rek bakkaar ngay indoo sànq ne naa la yàlla lekk jullit lekkal moroomam jullitam aw ñamam tiyaaba ji mu koy jural ëllëg moo gën a yàlla xañ ko tiyaaba jooja ngir fandeel yàlla fandeel yàlla lu ci nekk yàlla te kii boo ko boo ko lekkalee mu am ci lu yàlla mu ñëwaat nag ndekete yàlla kuur ndoxa ma ko gën a gumu ni sër bu tawalee bu yàlla ji bu taw day xam li tax nag yàlla ji taw ma ne mooy ndekete yee moom yàlla pour am ndox ma ko gënal duma ñu gëm parce que buur bi dafa naroon a jënd sëriñ bi duma ko yàlla ji bas taw Abubakar Siddiq yonent bi def na ni invité invitation daan na ko def lool gis naa yu bari yu xalifa bu tedd bi Abdul Aziz di def boo yëree téere yi gis ko ndax téere yi nee na ñu képp ku ñàkk ba jële ca dépense ju la lew jox ko jabar ju la lew mu togg ko ci sa matériel nga oo sa nawle jullit wàññi sa bopp ba mel ni du yaa joxe dépense bi man wàññi sa bopp ba mu mel ni du yaa moom kër gi antenne tibb ci sa loxo ba mu njëkk nga saxal ko ko ku ko def yàlla araamal na sa yaram safar loolu sëñ Abdou la ko def toujours sëñ Abdou la ko def toujours waaw def na la ko dugg la ko def toujours moom lu mu dégg rek ne yonent bi nangam jéem na ko imaamu saati bi ngam demi nee na sant naa yàlla lu ma dégg ne ne bi mës na koo am mbaa def na ko def naa ko am naa ko lenn rek laa rate am doom bu jigéen mu tudd Fatimatu ma am sama rakk ji tudd Aliou may ko ko loolu rek la may yàlla waaye lu nit di def loolu rek def na foofu laa aj ñoom nag dañ daan topp tànki Moustapha laqad kaana lakum fi rasulillahi kii ne ne uswatun kii ne uswatun waaye nag bu ne baax na bu dam na baax na bu kasara li baax kut watu dafa bokkul us watu us watu kut watu ko ëpp doole kut wa moo ëpp doole us kut wa kut watuna imaamuna wa qudratuna wa siidina wa sanadina wut wa mooy defal nii may def fa koy xut li tax mu ëpp doole nag usoo mooy defal na ma defoon defal boo demee defal na ma defoon kooku day uteeg defal nii may def defal nii may def mu ngi def nga di ci gis waaw kay du noonu doole jàngoo Moustapha tibb saxal ci di naa Ali Ali sàqar mi mu taxaw ba mu won mu jàll tibb saxal ci di naa Omar mu sàqar mi won na mu jàll ci bés sax ak Seydina Ousmane mu won na mu ñëw ci Sidi Abubakar Sadiq tibb jox ko mu won na mu tibbaat jox ko mu won na mu tibbaat jox ko mu won na asaabi nabi na ko yow lu yonent bi lu tax kii ñun ñu ne ku ne benn yoon kii nag moom ñetti yoon mu ne nanay def dama kas tibba jox ko dégg Jibril ne ni'ma sadiq ñetti baat jox ko dégg Mikaayil ne ni'ma rafiq ñetti baat ñett yoon jox ko dégg yàlla ci boppam ne ni'ma atiq Ababacar sadiq baax na Ababacar atiq baax na Ababacar rafiq baax béykat boobu am na solo su baax su dëkk ni diine pour mën a wax am yenn bés borom këram ci ñu tudd bëgg di gént garab gi ci digg kër gi daan ñu jooy jooy yu metti yeewu dem ci seydi ñu jóg ne ko dama gént garab bi ci sama ëtt daanu biig te sama borom kër dafa tukki rasulullah ne ko dogewuma la naw waaye boo yeboo solu ténj sa borom kër faatu ndaw sa jóge ci ak jooyam di ñibbi dajeeg si di abi bikirin siddiq waxu ko fu mu demoon waxu ko lu mu waxi loon Ababacar ne ko lu xew ak say jooy mu ne ko sama jëkkër dafa tuddi tukki ci garab gi ci kër gi ma gént mu daanu biig mu ne ko demal bale sa jëkkër dina ñëw te ay waay ay waay sattaana waay waaw ndaw sa dem toog tuuti wayu si dugg mu toog tuuti waay dina jaral nuyoo jibil na xëy na cëpp ne rasulullah soxna soosu nga doon jëkkëram dee na jëkkëram dee woon na ba ñu rob ko waaye dafa dajeeg Ababacar te maa ko tudde Siddiq nga xam ne lu mu wax dëgg la delloo naa waa ji ruud mais bu sangoo ba noppi dee dee mët na nag juróom ñaar fukk waaye damoon ñett rek laa leen ci musal di ñaarandoo Ababacar ne bi far na benn jaaru tere ko nee ne ko yëpp ko tëgg bi mu tëggal ma ko def ci njom yi laa ilaha illa allah bu mu ci teg dara nag waa ji téye jaaru bi dem yëpp ko tëgg bi mu bind laa ilaha illa allah Ababacar xool ko na ko lii dee la ma santoon waaye ñi ma ñu maa tàggali turam ak turam ak turu yàlla tegal ma ci muhammadu rasulillah tëgg ba teg ci muhammadu rasulillah waa ji yor jaaru ba dem jox ko nabi nabi xool ko fekk ñu bind ci laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah abubakar sadiqullah insha allah nabi na ko maa nga su raj mboolem tuuri ku ko def waa ji xool jaaru bi ne laa ilaha illa allah de moo santo Muhammadu Rasulullah ji nag maa ko ci def lu ngir ñu ma ñu ma tàggale sa turam turu yàlla waaye Ababacar Siddiq yi ne billaay defuma ko ci te sagguma defu ko ci na bi ne ko Jibril la ngi taxaw ne yàlla ne moo ko ci def loolu ni nga bañ a tàggale turam ak son was la bañ a tàggale sa was warku waasaara nabi li amal أرادت أمة النبي جميل أحمد مالك أرادت
ñett yooyu laa noonu dama ko ciy mos boobu bu ko ci kaw. jiital nañ ci jërëjëf sama doom jiital nañ ci ay fawaid yi jëm katira duggoon naa fi ci firi alquran ci olof mat na ñaari at ak juróom-benni weer sotti na maa ngi sant jullit yëpp ndax monsieur leen a denc ma ñaan leen ndax liggéey bu diis la indi woon naa ci ñaari Égypte yu ma bëggoon ñu dégg ko tey indi waale woon naa inama sabilu boppi isbu la ci sooratu Tawba isi bi ci ko daf mën li la siina amanu ñaari isbu yooyu indi woon nañ ko amin bi ngir dégtal nit ñi leen nag ci firim yi toog naa ci yëf ya mu baax ma faat Maodo Syll ànd ndox Maxtaar Seck sama doom bi baax ji war nga tuddee woon wala ci sa kanam daf ma wax ne papa dama def misiri isaan sama diggante sama borom ci bu ma yor microphone di ma li ma nag ba loola ma diñeeg yàlla mu bañ ma xob mu àndandoo ak Basiru Kunta àndandoo ak Ngaara jaay des na de moo dundee buy caar bu baax ñu ñëw ne ma alors ala de l'islam ñu yónni ci yow ak ak ak Basiru Jaay ak sama der bi ñu nga dimbali ñu jiyéen sa kanta laay xam nga siiwi alquran ci or rawaan nee na ma unis ko am nañu ñaar fukki at di wut ku firi alquran ci olof ndax boo fa demee lan nga wu ne firi nañ ko alquran ba mu des olof wax na ma sax ku doonoon góor ku ci duggoon ba mu teer nee na mën na jàng waaye da dul olof mu tàllal ji nit yi loxo ak yàlla tàbbi woon ci liggéey boobu ngir liggéeyal sunu diina sunu lislaam sunu xeet buñ demee ci UNESCO lan ko wuñ fa fekk mu di lan ko wu ñu firee alquran ñu xam ne itam ne olof yi ci diina ji lañu bokk te am nañ ci xëñtu nit ñi nag kaar neexul mu dimbali te maa ci jëkk te olof daf ne ko dàq ak sam xel foo nëbb raw la foo nëbb jaaxal la bu fekkee luñ la gaaral lu ne dafa sa xelam àddina bëgg koo dóor ci xelam àllaaxira sa du moroomam nee naa nee naa diina de lu ñu mënul a tontu lu ñu sañul a tontu la duudu diina du lu ñu mënul a tontu lu ñu sañul a tontu la loolu la ma indiwaale woon ko kay bii may wax biir sàll na ko bu ko leen mënul sama borom may dégg la kayit loogu ma yàlla baaxi ni mu baaxi ñëpp baaxi ma ci léppam muy benn salaatu àla nabi boo xam ne maa ko jëkk a fent ci irhamul ilahiya bi ma ko fenteeg léegi ma dina fukki at ak fanweeri at ak ñett waaye ren laa door a am ndigalu julli dama koy door a génne itam ñenn ñi ma ko daan jox lim ba ma leen doon wax naan lañ koy sikkar sanseloo nañ ma ko ni Cheikh Ahmed Tidiane niñ ko yokkuloo woon Jawharatul Kamal ak niñ ko parce que tariqa bi niñ ko gis nii melu nii doxal na ko at ñu yokkaat ci lii doxal ko at ñu modifié ci lii ba ni mu teere salaatu boobu mu dun indiwaale woon naa ko fii tey mooy salaat boo xam ni am naa yaqin ci ne yàlla da koy ubbiloo génn ñi kenn ku mu nar a gànt nga wax ko ci or mooy tur yi ci nekk gis naa nag ne sa mujj nañ may jox ndigal vingt cinq yi ma ko doon defle ñu di ko def léegi trente trois léegi trente trois lañ ma jox ndigal ndax dafa am ñetti ismu jëlin ci nekk di demiri mun fafa di guur ci nekk ñetti yoon bu ci nekk di fukk ak benn du noonu moo tax wax nañu ne xul jooju ci bopp saar wi bokkul ci saar wi huwa rek ngay wax ki ngeen di laaj huwa laaw kañ moo tax ñu ne boo jàngee fàttiyee ba ci iyaaka naa bu di juróom-ñeenti yoon àgg leen fukk ba jàng lixlaas fukki yoon ak benn mooy secret lixlaas kooku ma du indiwaale woon naa ko mu ngi nii pour bugg julli yi daje ñu jox leen ko di ko weccee ko téeméeri dërëm téeméeri dërëm du tur bi téeméeri dërëm këyit wi la ak bind bi waaye tur bi kenn mënu koo fay li ma jublu itam ci téeméer yi ñu ko wecceekoo def ko ci institut islamique bële institut bële dama bëgg mu sotti ci sama xalima li ma yàlla xamul ak as néew te mu di lu yaatu ñu di ko tas ci jullit yi ku ci am da nga am ñaan am cotisation ci jumaa ja ñetti yoon dama noonu nag bu ko kenn yëngal te ñëwuma ba waxtaan mooy lan ak mooy kan ak kii Amadou for ci benn jox ko Modou mu jàng ko ci kaw ñu dégg parce que mbokkam ñoo ne ku ñu gëm ñaari kaamil lañ ci indi woon léegi ana benn ba moom mu ngi ñor kañ suuratu Uhud bi la ñu bëggoon ku ko mën a am xool ko da ngay xool nag isbul maa min daaba nga seet aaya yi fanweer ak juróom benn fanweer ak juróom ñaar fanweer ak juróom ñett ba fanweer ak juróom ñeent nga continuer xool ba ci aaye ñeent fukk ñeent fukk ak benn ñeent fukk ak ñaar ñeent fukk ak ñett ñeent fukk ak ñeent ba ñeent fukk ak juróom ba ñeent fukk ak juróom benn ba ñeent fukk ak juróom ñaar ba ñeent fukk ak juróom ñett ba ñeent fukk ak juróom ñeent nga xam liy tam xarit ak lu ko waral mooy suñu kii suñu suñu conférence tey bi isu di maa min daaba fi ay francis juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent ba fukk fukk ak benn fukk ak ñaar maanaam ba ñeent fukk ak juróom ñeent ndax maa ngi dale woon ci fanweer ak juróom benn li xewoon ba li ñu ci ba ñu di ci barkeelu ba bërki démbal njaan ci la ñu bëggoon a def sunu tamit waxtaan bi gàllankoor dal nu waaye ñu ne tax ñi ma lañ ko ci dañ koy nekk di ngir yéen a fekk ak ko déwén ba ku mu fekk déwén mu bañ laa bett nga mën koo ngémb xam ne yii mooy tànk xarit defe naa ne ñu fi jot a indi kaamil bariwul bàyyi bari na fi ñu mën a alquran da ngay jàng ay nabi yi muy ilaa nuux lan ni ko innahoo min yuminu min qablika ilaa ma qad amana min qabl ndax yu kenn la woon ci yonent yi ci ñi gën a gudd fan ci yonent yi ci la waaye gënu cee gudd fan ndax Suhayb boo ko ëpp fan waaye amoon na lu jafe ku néew woon lool ca jamonoom ay moroom ndax yónni nañ ko ba mu am junne at yu manqué tuuti dafa ñu am sax majorité bu mat cent personnes te mosula tekki ngeen bañ mosula tekki mosula dellu gannaaw mosula yokki demoon nañoo dema dem ba buñ ko séenaan na waa ji la xale jàngoo bu munu fi fekk ñëpp ne ci séer daw ña mu koy def te mënuñoo daw te ñu am kaala lii la ñuy def seen kaala muy yéen yii bu toll ni teranga yi mucc ci safara dem àjjana mbokk mu la ko yoral di la ko jox ngay daw ba àgg ak moom ci di sañ say nopp ak di kaala say say nopp ak nag dem ba di ko dóor ba mu xam ñi di ko watal di ko sànni fu sori picc yooyu naaw di tooyal seeni mbagg di ko ko wicceex ko mu fi ñëwaat kooku xam nga ne nag yàlla mënu xam nga ne comme ñoom mu utali ñu di yéen ñii toog ci suba ba tey di déglu seen wax yàlla waaye muy mujjee bu xiixee def naan yàlla bul alak xeet bi dimbale ma ñu xam bu ñu xamee bàyyi lii ñu nekkee waaye rikk waaye bu leen xalaat ndax nekk naag loolu borom bi ba junne at yu manqué juróom fukki at ñu ñëwe ba xëy yàlla xamal ko lii ma la wax ne ko da ngay bëgg a àgge loo xam ne bu ma la naqari sore boo tekki sa ngan ba li nga def ci sa dund ak li def ci xeet bi kenn na ko war a gëm am ci film yër naa ndigg yi amul genn ndigg mu làmboo ci man yi ñuy jur doom ji jullit xool naa biir jigéen yi amul ci ku ëmb lu war a doon jullit yàlla arrêté na ngirum nit ñi ñeent fukki at maaw ko fa ndoru ñun quarante ans kenn ëmb lu ko waral ngir kaar yërmande yi doom ci baay te fas na yéen def affaire ñaari xisaan yi ma bëgg a nettali ci suuf dina jural sax ku amul dégg laaj waxuma la léegi ne quarante ans am nañu ko waa kër noo kenn ëmbul kenn musinu ngir nar nar bu yàlla nar ci nangul ko rapport ginnaaw bu mu ko tànkam loo junne at yu manqué ñe juróom fukki at am na saaru spécial balaa maa ñëw ci hol bi amul suru fi ma nga tafsir mbay wax na ko il n'est pas en ce xol nii léeg-léeg mu du heureux fa la ñu sit mu doon ila firara وإني كلما دعوت لتغفر لهم جعلوا أعذابهم في آذانهم واستغشوا وعذروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوت جعرا ثم إني أعلنت وقلت لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنينا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أعراض أي جاي ما لكم لا ترجعون لله وقارا سوخد خلقكم من أطوارا كما ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سباقا وجعل خبرتي إن النور وجعل الشمس سراجا ولو أنبتكم ميدان بشر جنراتور فالجنراتور لنا لا تفر الآن من الكثير ديارا إنك إن تسرون يريد عبادة ولا يلقى إلى صلى كما جبر
لا إله إلا الله góor gaa ngi waay
ñu ngi ñee pexe mu ne def na borom bayaan a ngi tudd ci aaya bi léegi juróom ñaari atte bayaan واستخسروا وعذروا كلم استكبارا في بغد في بكة إسراء dem nañu ba buñ ma séenee mais yow ñu daw su ma leen tasee ba mu ñëw ba mënuñoo dem ñu fab kaala yi kaala yoo ko noppi ñenn ñi nag di dugal seen baaraam ci seen nopp foo ko wax bi baaraam xëjul ci nopp wal jaxaso la ñu ngay dugal boo ko bëggee firi pir mu rafet instant bi moom seen cëti baaraam yëpp asaaneem ci seen nopp waaye baaraam xëjul ci nopp كل عرب تدش شيخ بعض أريد العام شكر العام أريد البر لأنك عرب تدل لك وتتوت لك بك ولا متدل تيتر لك ولا بك تدل تيتر جب لك ثم دي فظل فظل وجهك فظل وجهك مسجد العام يبين لي سانسر النبي قبل جميران جميل كان ولبتي حكرا كان جيل تبوتو كان جيل جم جيب له فولي ويش اكو بلتي سكرم فولي والبتر ويش اكو سجم جي جبلك نحو مسجد الحرام كيف جعلوا اثى بهم سن فتبار ام غير وقت في اذانهم في نطر يجينا برامبي عندي ما عندي كلام وانا عارف ما جاب تميمو تيامي ينور إنا أرسلنا لسجدون في نعم ngir lan naa yebaloon na ci mbokkam yi dëgër bopp yooyu ngir mu xëpp leen sama doole mu xupp leen ñu moytu sama doole dem na yelloo àgg na wax na liñ ko tontu na ba mu naan inni daalta qawmi laylan wa nahaara fala yasuddu duaa ilaa siraara falam yasudum duaa ilaa siraara yooyu yi la xew maa maa ngay ñaan laa dadar bul bàyyi alal ard ci réew mi yëpp di yaaram dinañ ko firi ko endal ba ngoon dinañ ko firi génn kër bu kenn dëkk dinañ ko firi kër bu kenn dëkkul waaye daal laa tasar alal di jaar léeg-léeg moom indaka inda daynoo doo leen bàyyiloo yëpp julloo dañuy sànq ibadaka te yëg naa ne wala yàlla doodoo fi ñuy jur ila sa waaye mu muus sax rek ci boppam bi ci ko rabbi déedéet waaw kay waaw kay waaw kay foofu ngay dégg na ne ci yoon dañuy bëgg a doy ñaan jëkk sa bopp door a ñaan fokk nga jëkk wax yàlla yàlla ma yàlla defal sutura defal leen ko waaye bul di wax gaa yi yàlla leen yàlla defal sutura rek day yaangaaral yàlla yàlla ma yàlla defal sutura defal leen ko yàlla yàlla defal sama ajo fay seen ajo fa tadeb bi nafsi hakasa ibda bi nal gëta bi man taw manu xam nga lu góor gi tudd lu góor gi tontu na dinaa def li nga wax waaye bul salité gorede wala tuxaatib nii bul ma tiimu yan da koy tiimee dina téye na solo mooy ci kenn ku bokkoon ci kuy def càncax gi booba jabaram ci la téyewu ko doomam ci la te def na ko te yàlla d'accord ci duma yëpp ne ko nag goreel de wala tuxaatib nii fi lazina zalamu annahum muraqun la ilaha illa allah
ñaari jabar la amoon benn bi yéefar la woon benn bi jiw ko woon ñetti doom la amoon ñu góor ñaar ñu julli la woon kenn ki yéefar la woon doy na waar nag maa toofaan si lañ ñëw ñu ngi jëm gars yi tam xarit la ñu jëm يا من لا قدر على الك- على- على الكفيل ديارة لتمركم إنك إن إن إن- إن- إن دبر من بولن جبري يدلوا عبادك فولا يلد إلا كافرا فجانا منهم ربنا كو- يا لنا كنغنا سمي أكور waaye kat affaire na am wala to xaati déeti la si na solo mu goreel bi tinuwaan kenn affaire bi nga amaat ci di sa rabbi innitni min ahli wa inni wala dëkk al xaa wala lañ ko teewe woon def na ko li yàlla teewoon na ko wax bu ma tinuwaan kenn mais bu mu dee ba yëfi nit ki ba bët kom nee na ko rabbi innitni min ahli wanaa daa noon rabb am na wanaa daa noon ibna